voilà damay aspect moral bi ak social bi dama japp ni euh, c'est pas le moment ñu japp Ousmane Sonko hmm. euh, parce que gis nañu euh, unique ah, condamnation de deux, deux ans créé un plus de 19 morts. C'est okay, Imaginez, on va procéder maintenant à l'exécution hmm. de, de, de, la condamnation de Ousmane Sonko. Mm. Maintenant, on procéder à Ousmane Sonko, mm. dans le Imaginez, l'Union Ogoul, lu xewoon lu ndaw lu ndaw lu xewon fi imagine lan la jur ba sénégalais tok avec ses ses ses sympati ses sympathisants et ses militants ñu ne xey ben jour ñu ne lan Ousmane Sonko finalement japp nañ ko dugal nañ ko digal dugal nañu ko ci kasso bi. imagine qu'est-ce que ça va créer encore ñu ngi nii di di wax ñun dañuy taxaw di média bi di wax euh, yeen gisago len dara ci les deux vagues. Hmm. la troisième vague ça va être pure té troisième vague bobu lañuy bañ Sénégal bi ñun ñoko mom

waxuma ay Auchan ay banque ñuy toj mais maintenant buñu ñu naree am troisième vague bo xam te day encore de manière spontanée Serigne Fallou franchement fallait la ñuy jëm euh, fan la wax euh, sur le volet social c'est clair alors dañuy daal di exactement ce qui n'a xam ne que moo Anita Diop encore une fois Anita Diop la sant je pense bien ouais tantôt euh, Diop tantôt Anita Nour voilà tantôt Li, tantôt lale en tout cas ñoom itam prédire neen benn éventuelle arrestation bu ki nga xam ne Ousmane Sonko

ma nit comme moom euh, moo am li nga xamné que modi exclusivité yi moom ki nga xam ne modi Anita ki sa cache derrière Anita batay xamuguñu ko mais quand même jox na révélation pour xamné tam franchement les luñu mëna wax lepp lu lepp si lépp lu ñu wax euh, tek nañ suñu bët exactement donc Anita euh, fan moy source qui l'informe exactement. xama nga Fallou man encore j'ai piqué pour ce pays. Mm, tu mm. sais pourquoi. ben média bu mel ni Walfadjri moo les faits en direct c'est-à-dire que les manifestations en direct te nekkul Walfadjri dafa diffuser 40 carrément toute l'intégralité des mm. manifestations benn mm. extrait bu ndaw mm. la Walfadjri diffuser en direct ñu jàpp ko tëj ko alors que Anita il fait le pire Anita il divulgue des informations secrètes étatiques c'est-à-dire que da ngay ay images yoo xam te gendarmerie moo jël automatiquement Anita relancer euh, information euh, sur les réseaux sociaux. C'est même Anita qui revient pour dire attention imminent arrestation de Ousmane Sonko. Tu sais pourquoi nous gëm Ce Anita TV là euh moi c'est euh, une bras droite de l'État ou bien de la justice. Ce qui se passe au niveau de la justice, voilà, il prévient même li ak li moy xew. Té dañ koy tek suñu bëtt c'est même Anita qui revient aujourd'hui, au moment où tout le monde est en train de récolter maintenant les, les incidents, les mm. conséquences, mm, les, dégâts collatéraux. et matériaux, euh, Anita Bob revient encore pour dire attention, Dani, Ousmane Sonko. té Anita Bob, la question que tout le monde se pose, quest ce du ko inquiéter? L'oumelni Wal Fadjiri, des choses pour un mois. Ni ni taw non si du injustice parce que amul liberté d'expression mm. le la liberté de la presse amul mais yow au moment des faits bi ngay mm. tëjee benen télé mm. média classique da ngay bails la plume à Anita mu wax lu connais dans ce pays moi ñu né Anita kan moko quand ngemb kan moy bàjjenam parce que amna na fi ci rew mi non non non il faut euh, qu'on il il faut qu'on euh, soit il faut qu'on soit sérieux mais peut-être il y a un journaliste qui se cache, euh, qui se, qui se cache derrière. Il faut qu'on soit sérieux, encore une fois, dans ce pays. Ok. mënoo singali ay médias. Hmm. di bàyyi kenen mu doxal. Lepp lu mu def nga ne gongo. alors que Anita TV musu fi joxe lu baax encore je regrette une fois Anita musul joxe fi information bo xamantene euh askan bi daf koy. Hmm. Euh, da koy comme lu baax la. Hmm. toujours sa femme lay joxe toujours humiliation, soit Ousmane Sonko humilié, humilié Ousmane Sonko à travers des photos, soit des vidéos. Mouni dit encore Ousmane Sonko dañ koy tek loxo c'est même en état. Maintenant, jappé ni si man man si on était dans un pays sérieux. Wax man le euh, Sénégal c'est pas un pays sérieux. mais si vous bu que liberté la démocratie la justice d'Afti Amdole, am doole boo xamante justice euh, équitable et transparent hmm. Anita TV euh, cette justice là le ministre de l'intérieur dina def tout pour xam ba xam Anita TV bobu moom kan parce que chaque fois Anita TV day fan lay information gis nañu fi ay cas yu bëri yoo xamante ne xewoon na fii. mais parce que loolu euh, monde monde hein? virtuel bi la c'est-à-dire monde virtuel bi. mais y a pas mal de manipulateurs. mais euh, loolu laa la wax qui s'en profitent derrière li nga xam ne que moo di ses comptes. mais loolu laa la monde virtuel bi la. mais mais contrairement à Walfadjri. média mm-hmm. classique la quand même. Oh, média classique la xam nga Anita moom day xam taal bi c'est-à-dire que moom lépp lu mu joxe c'est appel à l'insurrection bon lañuy topé ñu bari fi mota ñu duggal leen ci mais Anita exactement les def c'est-à-dire que Anita il a média bobu day woté à l'insurrection fitna lay woté imagine imaginez au moment où wax dialogue tay lañuy mercredi je sais pas. Hmm. ñi hmm. fi à te wër hmm. woté na suba récital de Coran. ci ci territoire Sénégal bi alors au moment où que les gens dañuy taxaw seetlu ban issue lañuy solution franchement pour préparer à d'éventuelles comment euh, euh, euh, euh, euh manifestation yu ñëw wala ñu éradiquer lo évacuer carrément ne Anita apparaître hmm. muy non Ousmane Sonko dañ koy tek loxo duggal ko ci kasso bi mu andi encore une information bu hmm. mais alors Anita bobu moy kan ak kan mo koy information ak ban sañ-sañ la am ci ban la am di information yooyu bu fekkee beneen information yooyu ils vont faire tout pour savoir moom kat ñu bloqué wala ñu jàpp leen convoqué leen ñaata journaliste lañ tëj. Hmm. ci ay ñoo xamante ne joxe avis wala ñu taxi ni mais Anita bo ba au moment des faits Anita mu ngi doxal gongo. Hmm. moo tax la euh, attention y a un problème dans ce pays il faut que nous réglions la question de Anita d'abord parce que média médias day xam chaque fois day xam tal bi encore je regrette. Euh, donc c'est clair justement euh, Anita moko ko daal di euh, que ni li nga ki Sonko euh, suñ moytuwul dinañ ko daal di li nga xam ne que moo di euh, teg loxo moom itam euh, annoncé na li nga xam ne que moo di arrestation bu ki nga xam ne que moo di bu Ousmane Sonko ndaxte ki nga xam ne que moo di Anita jàpp na ni dañu nouvelle yi nga xam ne itam am na ko si ki nga xam ne que moo di Sonko muy à partir de ce jeudi 15 juin 2023 représentant la fin des 15 jours du délai d'appel la condamnation sera définitive pour Ousmane Sonko qui ne pourra plus faire appel contrairement à Ndeye Khady Ndiaye et Adji Raby Sarr alors ba Anita Diop moo daal di jàpp ni si ñuy euh, fii ak jeudi nak euh, mom ki nga euh, Ousmane Sonko du appel donc cette condamnation sera applicable que ni ko justement donc cependant il reste que quelques heures pour se constituer prisonnier et bénéficier de ce privilège. passé à ce à cette stade le procureur de la République exécutera la décision rendue par la chambre criminelle dès que la signification lui sera faite et ordonnera son arrestation alors Anita Nena Sonko fii ak

force restera à la loi bobu mom ñom ñokay wax. Hmm. ba légui kenn weddiwu ko. Hmm. nit musul taxaw fi Sénégal ne man je suis pas justiciable. Hmm. amul ko ko wax fi ci Sénégal. amul ko taxaw fi ne man je suis au-dessus de la constitution wala moi je suis au-dessus des lois. amul képp nit musu ko musu ko wax fi Sénégal. mais alors ñom ñoy am problème avec la justice ñu taxaw ne man duma wuy je sais pas si tu as suivi euh, euh, keroog à l'Assemblée nationale Guy Marius Sagna fàttali na ko le ministre Mansour Faye daf ko ne yow yaay kan hmm. ba justice woola nga ne duma wuy ji ñoom ñu taxaw ñu faree ci kuje yi ñoom ñooy taxaw ne man hmm. duma wuy ji hmm. Ousmane Sonko est-ce que mës tok fi fii mu ne du ma wujji xanaa kii déjà sens civique bu ma wootee. te boobu. mais aussi ma daaneel fofu té bobu c'est important mais te boobu mais Erfan mais Erfan si le droit mhm. exactement parce que temps bi daf ñoo xoj. 15 mhm. euh, jours Ousmane Sonko la amoon pour mu da déposer li nga xam ne moo appel. mais 15 jours yi mais 15 jours yi euh, jeexagul euh, il a bien précisé il a bien précisé aujourd'hui c'est quoi. c'est mercredi. C'est mercredi. Donc, c'est avez quelques heures, moment Non, mais jusqu'à la dernière seconde, c'est pas trop tard. ok maintenant moi tax ma Anita moom mi, mooy kan. pour ne non c'est trop tard lui c'est pas le juge. mais il c'est pas le parquet non il n'est pas informé plus que nous. on est tous des journalistes ñun dañuy dem euh, comment dire dañuy dem euh, palais de justice. sûrement dañuy euh, gëstu ci magistrat sûrement dafa am ku nekk ginnaawam su nekkee ki gérer voilà moi tax ma ne la moom mooy en fait yow a un délai de 15 jours d'accord bien sûr. Hmm. jusqu'au jeudi. Hmm aujourd'hui c'est le mercredi. Mais c'est trop tard, c'est pas trop tard. Jusqu'à la dernière minute, Ousmane Sonko peut, peut faire un recours. Mais des fois, ou bien peut se constituer euh, prisonnier pour bénéficier de ses privilèges. Hmm. Mais, il y a des ay magistrats waxuñu loolu moom lu mu wax moo Moi, je suis la man droit Sénégal man damay dem ba réer damay def ay gëstu damay dem ci ay magistrats di poser ay questions mais qui day wax est-ce que xam nañu ay magistrats ñuy taxaw di Ousmane Sonko n'a pas été condamné par la chambre criminelle ci euh, infraction bomb? Hmm. dañ la ne délit lañ ko. condamné mais mais la pas. le mom may ma développer délit la délit la délit lañ ko délit lañ ko condamné. alors que contumace bobu amna ay magistrats yo xamantene ne dañ la ne. contumace boobu day sauter. parce que Ousmane Sonko bul fàtte ak Mame Mbaye Niang délit lañ ko condamné. c'est clair à son c'est-à-dire que ñewul bi encore délit là, mais il peut faire un appel. <laughs> voilà. Maintenant, quand Anita a dit que voilà, il faut qu'il se constitue prisonnier d'abord pour faire un, un appel, Lolo, ça lui convient, lui, c'est son droit. Voilà, kenen tamit dina ko pas dit c'est mom Anita, qu'est-ce que moi, droit quand même. Euh, c'est clair,